Voilà. Salam alaikum. Donc, euh, je pense que l'idiota Khewagum, qui caravane de la liberté, nous tous pas Et je pense que étape bi nga xam ne jëm comme niñ l'avons koy toujours dafay gën a mën naa ne yomb waaye aussi gën a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 dañu indi li ak dañu indi lële may wo jeunesse tambakunda mbir mi relais la si vous connaissez bien le sport relais manam da ngay daw ba yegg ci sa morom nga jox ko flambeau bi bant bi mom mu continuer daw yow nga taxaw kele tamit daw ba yegg ci moromam mu jox ko bant bi donc la jeunesse de Tambakunda, vous avez une responsabilité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 Non, la jeunesse su Tambacounda mes responsabilités pour sécuriser le président Ousmane Son. li ci des nañ leen ko bàyyee ñoom rey nit beeg fetal ak yëfu samba booy yëfu banditisme yi nañ ko laisse ça avec eux ñun ñu ànd ak dama di wax le président Ousmane Sonko nous a dit d'avoir confiance en lui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 tuddu fa ñi ñi wax yépp ne bok nañu ci complot bi tuddu fa kenn loolu ma lay ne toujours ñom ñu ngi ci leur xel waye limay may jeunesse bi caravane de la liberté le président Ousmane Sonko woote duma len menacer duma len tiital duma len wax lu len di naqari ndax wax deug yalla ku lay dimbali te yalla rek tax ko xamne bopam boppam lay xeexal kooku jarta xass duñu xassati ben sénégalais parce que lu waay def sa bop nga ko defal senegal Ken xexalul Tunkara ken xexalul Sonko ken xexalul masamba ken xexalul madem, kep ku xex ci Senegal, tu te bats pour ta souveraineté yow ci sa bop xamal lolu ndax alalu senegal bi ñun ñepp ko bok so amé liggéey di fayeeku du man ngay ñew jox sa salaire sa njabot nga ci dundal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 du tey newoon nañu dañoo barricade ngara preuve yaa ngi ni dama len koy indi ñom ils nous ont dit que barricade nañu ngara yor sen lamiñ nak di wax di napaté di menacer ne wala gendarmerie wala grenade lacrymogène tej nañu ngara nee nañu kenn du dugg kenn du genn dama len di won pour ngeen xam pour ngeen xam ne ces gens là ils sont impuissants et incapables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 qui apparaît au milieu de la ville de Vélingara président Donc, donc ndax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 Manam day roy ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam. ci mom rek lay roy te mo jara roy donc sonko li muy def ni dafa amone ci l'islam bala tay te dekk buñu libérer ci aduna bi dafa jaar ci lu melni donc je pense que la jeunesse sénégalaise bayilen xelne le président Ousmane Sonko mom dong ak yalla li du ko ci fekk waye bo len gisee tay mu xar jël bakkanam tek ci sacrifier toute sa vie pour libérer son peuple na bum ñu de ce caravane de la liberté a déjà fait succès bi mu jor ak légui ñom rek la président Ousmane Sonko laal nga ko moy nga sénégalais tu as touché ma vie ñom xam nañu donc ci ay banditisme la dox ak ay sommes ñom xam nañu ci dara xam nga xam ko man man man man la la la def nangam wax la jeunesse restez déterminée Déterminé. combat bi li ci des vie, une semaine la ñu paré ak vous voyez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 du Issa Ndiaye bi nga xamne mom moy magistrat bi ki Issa Ndiaye la tuddu momit di magistrat mais il n'a rien à foutre avec l'affaire Sonko Adji Sarr donc ñom ñoo génnee li nitu mag pour divertir ñu manipulation la ça c'est pas le vrai Issa Ndiaye le vrai Issa Ndiaye il se nomme Elage Issa Ndiaye te bandi la usuy la nekkon mo nekkon président tribunal usuy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 manam ni ngi mel ni maag yow ñu bokk kër waye kër gi 75% ma ko mom yow 25% nga mom nga ne danga may génnee kër gi xam nga loolu yenuwul maanaam waye nañ ko bàyyi mu foyé xelam la wolof di wax nañ ko bàyyi mu cokkotaan xelam bu cokkotaanee xelam xëy xeyna xel bi reetaan ndax xelam lay cokkotaan amul problème waye ce qui est sûr que les Sénégalais se préparent pour le combat final cooki fin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 ngeen sécuriser ko buy dugg Dakar nak dekk bu mu dem na yobale ben cinq personnes yo xam dañuy tegu ci convoi bi dekk bu Ousmane Sonko jaar soyez 5000 jeunes qui vont rallier Dakar avec lui Ousmane Sonko mi ngi wax ak yéen de mi ngi wax ak te waxul parfois on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche et dire les mots parfois